muy di ngóobum saaño moo xam ne baaxoo nañ ko fa di ko fa amal ci teewaayu nag eh, jëwriñ ji nga xam ne moo tànn daaray Lagan def ko muy daaraam ci ndigalul sëriñ Salihu di alhaji Samuel Sarr samedi le 2 décembre ñu woote ko mu déparé ndakaaru ànd ak ay xaritam ñëw Lagan ginnaaw bu mu ñëwee mu jaar ci barab bu tedd bi nga xam ne sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke joxoon na ko ci ndigal mu ànd kook moom di ko liggéeyal sunu borom subhaanahu wa taala te moo di néegub yàlla ngeen gis ko noonu muy jumaa ju mucc ayib ñu ubbi woon ko waxtu wi daaw 2022 ginnaaw boo xam ne sëriñ Tuubaa Cheikh Saliou Mbacke ci biir daara ji def na fi jàkk joo xamante ne bii ci la ju doom donga yi daan jaamoo seen borom subhaanahu wa taala ci waxtu yu juróom mu ñëw yeesal ko ci penc mi nag ginnaaw ba mu ziyaare symbole bu mag boobu la daal di takk ak laxasaayam nag ànd ak ay xaritam dëgmal nag fi nga xamante ne bii moo di liggéeyu tool yi mu ci liggéeyee nag ba ñaq wi dar ko lool nag mu jógee ca tool yi nag ngeen daal di daje nag ak jëwriñ yi nga xamante ni bii ñoo ngi ci tool bi ngeen gis saañu si ni mu bare waaye xool itam donga yi pas-pas bi nga xam ne suñu borom jox na leen ko muy ndaw ñi ak jigéen ñi ñu góob ko muy ay tool yu yaatoo yaatoo yaatu waaye lu ci ëpp ñu lippi ko ci ay bopp yanu ko indi jaagal ko sëriñ bi muy jaag bu mag a mag a mag te lu du benn jaag muy ñaari jaag yoo xamante ni benn bu ci nekk war naa yaatoo fukki mètre waaye am na lu mat juróom benn fukki mètre waaye am na taxawaayu ñaari mètre ci kaw loolu day tegtale ne kon liggéey bu am solo la ki ko jiite woon di Ibrahima Khalil Lo ñu gën ko min ci sëñ Khalil Lo ci daaray Lagan noonu rek lañuy ñuy wéy ànd ak yéen ak suñu caméraman El Hadji Fallou Ndiaye eh, sëriñ na ci wàllu micro bi mu jël ay réaction ci biir tool bi pas-pas bi nga xam ne dongo yi amee nañ ko e, ak barab yu wuute yi nga xam ne jóge nañ fi e, loolu itam lépp ànd rek ci sàkku ngërëmul Serigne Touba Khadim Rasoul ji mu wax ne waqdi hawaïja allazina daamu fi xidmati wa hablahum ma raamu ñaari baat na nga def na nga tudd man sëñ Mbacke Fall sëñ Mbacke Fall ko Mbour laa bàyyi ko Mbour waaw daa ñëw Lagan waaw dañoo ñëwoon Lagan waaw boo gisee sant rek sant bu wér a hmm. waaw taw feexe na loolu de ah. ak sëñ Tuubaa waaw ñëpp a ngi foofu alhamdulilah day def waay saa bàyyi Moustapha Thiaw Mbour laa jógee na ngay sant alhamdulilah alhamdulilah ah, jaajëf ñu ngi sant baax yéen suñuy jëwriñ waaw ca biir a biir waaw des na ca biir waaw des na ca biir rek alhamdulilah nga tudd man hmm. ñoxo baay Diouf ñoxo baay Diouf waaw ñoxo baay sukkur sukkur ndaw de foo bàyyi ko ni man Fatick ah Fatick nga jógu waaw da nga ñëw gën a jëm kanam sëñ Cheikh na fu yàgg rek te wër barke borom Touba yàlla na ko fi yàlla yàggal lool liñ sëñ Saliou doon wax ñoo ngi koy gis ci moom bu wër waaw ñun sëñ Saliou bu mu demee hmm. xawoon na jaaxle hmm. waaye gis nañ xam nañ ne dëgg la bàyyi nañu fi ku jar a bàyyi ñu sëñ wër. Eh, <laughs> Déthié Diouf. Déthié Diouf. man Bambey laa jógee Bambey séeréer ah gis nga de <laughs> njëriñ rek laa wër si si si siñ bi laa siñ bi laa liggéey si waaw siñ bi siñ bi moo ma fi indi ah liggéey bi normal na jaar na yoon waaw ah siñ seex kay jàmbaar la de ñaan bi moom ku fi ñëw daal di nga gis sa njëriñu bo di ko gis incha allah waaw waaw ñëpp laay fasaale yal na ñu yàlla may tawfiix ak taysiir rek. Baye Ngom waaw. naka Balla Mbaye naka liggéey bi. ah gis nga si ñu ngi bi yem rek. di waaw. man incha allah bu liggéey bi jeexee rek. liggéey waaw liggéey sëñ Tuubaa. jërëjëf jërëjëf. salaamaaleykum wa soxna Aïda mu Serigne Saliou. waaw. Mbuur lañ jógee. ñëpp a ngi nuyoo ñëpp waay waaw eh, ñun ñooy Serigne Saliou suñu waay la waaw kenn mënuñu ko wax sant Serigne bi rek man Mami Mbaye laa tudd dëkk Mbour waaw soxna si Baye Serigne Gueye ah, waaw waaw liggéey rek sëñ bi ñu ngi liggéeyal Serigne Touba liggéeyal taalibe yi ñun ñooy ñun ñooy yeesal Touba Njaareem bu Mbour waaw ñun ñoo ko yeesal ñun ñi ci daayira ba la ñu bokk di liggéey Serigne Touba ba jeex rek yal na ngeen fi yal na bi yàgg jëwrin waaw waaw waaw waaw Baye man Malick Seck Mbacke waaw Santhie waaw ah liggéeyal sëñ bi rek waaw waaw fi bàyyi de Seynabou Diaw Kër Baka waaw waaw waaw waaw am rek waaw ah, liggéey Sëñ Tuubaa ah. loolu teewut rek euh, gis ngeen ne ku mel ne Samuel nga xamante ne bii pas-pasam lépp ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul la ko jëmee di jëwriñu tool yi mu dem ci dal yi euh, rawatina euh, njabootuk sëriñ Hissa Dieng nga xamante ne bii Serigne Youssou mi nga xam ne moo lañ fa nekkal na ci buntu ba waaye siyaarante ak ñoom maslante ak ñoom joxante ñoom ay kàddu yu am solo. Hmm. Hmm. nee waaye mbokk yi fi daje rek. Hmm. maanaam jaroon na def. jar na def ko ñëpp bokk yemb bi bokk xewlu fii lépp man. Hmm. Ah, itam ñëpp a ngi fi suñu naar mi suñu suñu ko tudd. Hmm. Abdourahmane ne tamit moom xam naa ne daal lépp daal génnul sëriñ bi. néeg yi nekkoon lagan bi ñu koy bi ñu koy bi yi. suñu baara jëm la moom la suñu sari moom la ko joxoon moom mm, mm. lu yàgg nañu fi yëngu ñu ñëw fii itam daanaka wéttali ko Cheikh Issa ko mm, moo tax suñ moom buy woote tool bi ñi fi gën a jige ñoom la war a njëkk woo rawatina nag ñi fi gën a jige ba noppi seen maam nekkoon lépp seen waaye nag ñu leen suñu jiitale ci woote bi tam jëfe nañ ko ndax ñoo fi jiit ñoo fi ñu at mu jot tam noonu lañ ko def moom itam day jàpp ci liggéey bi lool neen nekk jëwriñ bi féetewoo daara ji jàppale dongo yi di leen taxaw maanaam daanaka li li muy taxaw ni ci liggéey bi moo gën a tuuti sax ci lim ci def daanaka daa dafa sasoo daara ji rek man bu toll maa ngi seet la fa war ak la jaadu sax di xaar sa sëñ waaw loolu nag ngeen ñaanal ko cër boobu suñu borom gën koo dooleel ba mu gën koo mën a taxaw loolu bari na bari nañu ko bëgg te moom képp ku mu tànnul ko liggéey moom moom mooy tànn waaye bi ñu fa jógee gis ngeen ne dem na ci sëriñ xaadim mi nga xam ne mooy taawu sëriñ seex mu sëriñ saalihu yàlla na ko yàlla may fan wu gudd ànd ak wér yaram taxawaayam bu rafet ci tool bi dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la

léegi nag su ma demee ba sama sama sama taaw bu góor bi nga xam ne sëñ bi laa ko tuddee day toog di la laajte te xamul day toog ah moom day am na numéro bu ñu amul see sant rek doole sant sant cant la de sant cant bu rëy la sant bu sant bu sant loolu moom ndegam am nga jëwriñ ci loolu war na yoon moom fekkee na ko ba ñëwaat ci rek yoon moom jaar moom yaa ngi ci teg sa bët damay naan xëy na ba nga xàmmee gud kon nga jëloon teg sa bët ba ni nga xam fexeel ba fexeel ba raw ndax mm. moom li mu ñaan it mooy nga gën ko fexeel ba jëfloo ko gënee mm. waaw te jëf rek ko koy may na mm. jëf jëf pas-pas mm-hmm. fexeel ba daal moom moom maanaam lu ñu ci moom lu gisee mu ngi loolu asaka yi la boo góorgóorlu noonu suñu borom dañ lay dimbali nga bañ a gis sa bopp ci fen ki lenn rek nee na suñu borom mu bëgg. lépp lu léegi si la nga nga bañ a. yàgg naa la bëgg xam la. ndeysaan ndeysaan depuis depuis màggal bi laa laajte. kan mooy mooy taw sëñ Cheikh. ndeysaan ndeysaan sëñ Xaadim. ndeysaan moom duñ nekk Touba moom. ndeysaan si daaraam. ndeysaan waaw waaw de si kàddu yi nga wax lii. moom la ko moom la ko sëñ Cheikh wax sànq. même mm. <laughs> wax. moo tax ma ne. Mm. même kaddu. la ko wax. moom la kaddu la wax. Mm. même chose. sant yàlla rek. alhamdulilah alhamdulilah ñun daal ñu ngi lay sant daal ñun daal dañuy sant di sant di sant di Serigne Saliou Mbacke bu baax. alhamdulilah alhamdulilah. li may wax nit yi rek. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, moo ñu xam nañ xam ne ñun ñooy kan ak nan ñu defaree comme yow da ngay comme noo leen ko waxee rek di sant te seen cheikh bu baax di leen sant parce que da ngeen da baax rek pour xajal si liggéey bi parce que liggéey bi sax mënoon ngeen ko defal mais da ngeen baax rek ndeysaan ndeysaan euh, ndeysaan suñuy dégg nag suñuy mm-hmm. dégg si ay dégg ndeysaan ndeysaan yaa jiitu ñëpp ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan balaa jeudi sax mm-hmm. yaa ngi woon fi tàmbali tey te xalkom nga jóge yooyu yëpp dañu koy dekkale yooyu yëpp dañu koy dekkale di sant bu baax ndeysaan alhamdulilah ñu gën a sant bu baax alhamdulilah ndeysaan ndeysaan ndeysaan mm. euh, mm. soo bi amul woon te yaa ngi suñu xol ndeysaan ndeysaan dëgg la dëgg la mm. sama doom depuis daaw mm-hmm, ndeysaan ak màggal mi ñu wax ni moom lay mhm. bëgg la xam. ndeysaan ndeysaan ndeysaan dëgg la. def mhm. nag yàlla def. ndeysaan bi muy muy tey. Mhm, mhm, dëgg la dëgg la te suñu suñu suñu cofeel. ak suñu en tout cas yu daal suñu daal yëg nañ ko daal. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah sant bu baax. alhamdulilah ñu ngi sant ndax moom dañu baax am na solo waaye baax sax si moo jafe nag. Ah, wallaahi moom nag kon day mel ni mooy wane ni baax nga sax sax sax nga ci. loolu lay firndeel rek. loolu eh, yàlla bu ci yaakaar tas rek. njabootug sëriñ Aliou Seck Wanaar waaye ñu ràññi ci sëriñ Basiru euh, sëriñ Babacar Seck mu sëriñ Basiru Seck mu sëriñ Aliou Seck Wanaar ak waa Saloum gépp ñoom ay taxawaay yu am solo yoo xam ne taxaw nañ ko ci ak bokk yi nga xam ne ñu ngi ci terrain bi yëpp ku mel ne Alhaji Gille Touré euh, Touba RTS ànd ko ak daayira bi nga xamante ni mooy daayira bu mag boobu di fédération boo xam ne euh, kenn mënu koo gis ndax ne ci waar wi rek dina bu boppam di liggéeyal yàlla muy liggéey bu am solo loolu nag ci la ànd ak suñuy caméraman eh, Serigne Fallou Ndiaye eh, Touba Info waaye mu ànd ak Serigne Cheikh Amar bu ICAB FM seen mbokk taalibe Fallou Galassine bi kon dañuy ànd ak yéen ci liggéey bi rek ngeen xool lépp li nga xamante ni bii eh, murit yi doon nañ ko amal foofu ci diggante samedi ji ak dimas ji mu di ngóobum saaño moomu nga xamante ni bii ñu ngi ko góobe ci daaray Lagan nekk ci ginnaaw mbulkayal Eh, mm, digganteem ak Gossas muy tool yu am solo sant sëñ Cheikh euh, at bi moom tool bi nangu na lool euh, dugub bi bari na te nit yi bari nañu ñu ngi sant mbooloo bi fi teew yëpp jóge fu nekk ci senegal pour jàpp si liggéey bi jàpp ci liggéey bi jàpp ci liggéey sëñ Saliou Mbacké di dimbale seen bopp dimbale ñu euh, dëgg la yaa amoon nañ yaakaar sax ñun jëwriñ ne liggéey bi dina dem ba lundi wante ah yaakaar naa ne ah, ah, jëwriñ ah, liggéey liggéey gis nañ ko dem nuñ wër ne liggéey bi daal nit daal def nañ def nañ si bu am jéego ñu si sant bu baax sëñ Cheikh Saliou na xam ne daf ñu boole si liggéey bi nit yi nga xam ne dañoo jàpp si liggéey bi mu muy jëwriñ ñi nekk si biir daara bi ak jëwriñ ak jëwriñ ñi nekk si biir àll bi yëpp indi mbooloo bi ak organiser mbooloo bi ñun daal at bi daal yéem nañu parce que tool bi nu mu dey euh, ak liggéey bi nuñ ko organiser ba nuñ ko tuddee efficience ak efficacité moo tax tey ñu mën a santati santati sëñ waaw ñoom day ñoom seen bopp lañuy dimbale sax parce que sama ay wëlëre lañu ñii si politique ñii si amee ay mbokk lañu ñii sama ay doom lañu sama doom bi jógee Londres ba fii pour ne parce que dafa war a bokk si lagan waa lagan euh, day moo ko fi indi te moo ko fi bàyyi sax <laughs> euh, wante sama wëlëre yi ñii politique laa seq ak ñoom ñii liggéey laa seq ak ñoom ñoom ñëpp daal teew nañu pour jàpp si liggéey bi wante koo gis rek Euh, mu ñëw jàpp si liggéey bi rek xamal ne day dimbali boppam parce que man mii xam naa lan lan la mu sëñ Saliou defal nga ba may tàmbali di laal cof lagan trente mille tonnes yu trente mille hectares yu ñu am xelkom rek doy na doy na doy na abondance alimentaire autosuffisance mooy ñi xamul Serigne Saliou abondance nag ñi xam Serigne Saliou maanaam dinañ béy ba ba mu ëpp sax ñuy mën a di jox yeneen dëkk yi ndaw yi di si liggéey parce que ndaw yi soo xoolee tey yu si bëri ñoom ñoo ñëw jàpp si liggéey te xelkom lañ joge de duñu tàyyi duñu sonn pour liggéeyal sëñ donc loolu moom dañu ne rek nañ ñu ci roy ci suñu sëriñ dinañ gis ne waxuñu autosuffisance abondance la ñuy wax euh, santati sëriñ Saliou Mbacké santati sëriñ Cheikh Saliou Mbacké di sant nag ñëpp ñu fiy teew ñu leen sant bu baax xam leen ne liggéey bi liggéey du man la ñu liggéeyal de seen bopp la ñu du sëñ bi la ñuy liggéeyal de dañoo parce que sëñ bi mënoon naka sax defal boppam sëñ bi daf ñu dimbale pour ñu ko liggéeyal moo tax ñu koy sant di ko di leen gërëm yéen